2021. Diaspora 221. Pour toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et vérifiées. asalaamaaleykum mbokk internet yi nga xam ne toog seetaan Diaspora 221 amaat mbégte ak contentement saa su nekk di jàkkaarloo seen site bu mag bi nga xam ne tubaarkalla ah, nee naa la ci information lay dox waaye information da koy joxe à temps réel hmm. tey ma jàkkaarloo ki nga xam ne rek foog naa ni àddina yépp xam na sama diggante ak moom muy Souleymane Awalaay waaye xale yi ñenn ñi naan kaa Jules Teranga ñii naan kaa Rosé Rosé hmm. nuyu naa la fay naa la yaa ngi am jàmm sama rak <laughs> maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu bu baax waa bien sûr. di kontaan ci toog ak yow na mën naa la. laay maa la waaw <laughs> ah, comme ni ma ko waxee léegi euh, foog naa ni kii kenn dootu ko présenté ci Sénégal euh, euh, mu nekk koo xam ni àddina xam nañ ko mu nekk koo xam ne marqué na empreinte am ci li nga xam ne rek mooy milieu showbiz Souleymane Awa Laye. Mhm. qui est Souleymane. Souleymane Souleymane c'est un mhm. di di di jullit di doomi jullit. di mhm. murit. taalibe Serigne Saliou. et euh, di nit normal di taalibe mhm. di xale bu ndaw bu nekk ci dëkk bi mhm. liggéey jàpp ñaamuram ku nekk ci dëkk di liggéey <laughs> jàpp ñaamuram comme ni nga ko waxee foog naa ni tey euh, balaa maa ñëw ci li nga xam ne rek mooy rosé damay ñëw ci sulay Zultaraanga mhm. parce que euh, comme ni nga koy waxee saa su nekk sa tur dañ ko jël dàkkanta ak sa tur yaay mu yor Souleymane Awalaay mais genn wàll réew mi yëpp Zultaraanga la ñuy wax lan moo tax ñu jël sa tur takkale kook teraanga waaw Jules Teranga je crois que moo jiitu. moo jiitu loolu yàgg na tu vois. loolu loolu depuis depuis xale la quoi benn handicapé moom moo ko moom moo ko tuddee. ndeysaan je m' rappelle c' était man Emko ak Jean. Mhm. Colobane la woon. Mhm. mes amis je les salue de passage. Mhm. Mm, dañ àndoon di dem Colobane dajeeg benn yalwaankat. moom moo tuddee Jules Teranga. moo tuddee Jules Teranga voilà léegi tur bi ci la law ba nii nii nii nii. Mm, d' accord léegi nan nga nan nga duggee ci milieu showbiz. milieu showbiz bon. moi je peux dire que showbiz, est-ce que c'est pas le showbiz moom à choisir parce que tout a commencé par sama anniversaire. 31 mhm. décembre. Mhm. chaque 31 décembre dama doon def anniversaire sama kër benn 31 décembre nag ma ne pourquoi pas ma def ko yëngu leen. Mhm. maa ngi nuyu sama papa Cheikh Niane. de bu nekk yëngu leen yëngu leen. par la suite ma koy def foofu di ko def entrée. ñi di ñëw. ba affaire yi daal neex xam nga boo def ay soirée xale bu ndaw commencé di masbe ci affaire nga dugg ci tu vois mais yàqul sama jàng dama ko doon dama ko doon def tous les vacances par contre j'ai commencé à aimer le milieu ko bu baax di ci dugg nank nank nank nank nank ba fi ma egg nga di ci dugg nànk nànk ba fi nga egg si tey macha allah yàlla na yokk nga am ci lu kawe sa njortu hmm. ba tey ñu gisoon la nga yoroon benn label boo xam ne yaa nekkoon directeur bi PDG bi sax ba foog naan koy woowee ci réew mi hmm. tey mbiru PDG muy euh, label bi nga xam ne mooy label sa Best euh, Production hmm. nga nekkoon ci euh, yoroon label bi jiite woon ko formé ay xale yoo xam ne maanaam recruté leen mu nekkoon groupe The Best Family sa sa cré sa création groupe The Best Family ak dugg si bi nga dugg si collaboré ak The Best nu mu demee non bés c'est mon jumeau ñëpp xam nañ ko c'est mon frère tu vois. Ah. man ak moom la ñoo ko ñoo ko créé teg ko muy Best Production. Ah. c'est vrai que j'étais le directeur général. Best moo doon gérer production bi tout ce qui est euh, studio clip vidéo. Ah. la musique et tout ce qui va avec. et que euh, mu nekk koo xamante ne ba tey ñu ngi collaborer on travaille ensemble. tu vois on va jamais se séparer. tu vois allah rabi kooku c'est mon frère. ñu ñu nekk ci nag di ci liggéey xam nga ni nga ko waxee ñu bëri jaar fa ba yàlla fi mu ko yemale voilà mu doon mu doon loo xamante ni nag tey mi ngi existé hmm. waaw Zabes production ba tey mi ngi existé si mi ngi existé si ko existé boobu tey foog naa ne groupe bi nga xam ne mooy Zabes famille muy ay xale hmm. man mii di wax ak yow fa laa nekkoon foog naa ni xale yi aussi da nga leen jëloon teg leen sama loxo ah. du dëgg ñu liggéey hmm. fa liggéey bu rafet waaye dañoo jékki-jékki gis groupe bi kenn ku ci nekk di quitté lan moo indi problème boobu. non je xale sa daara bopp. <laughs> si esta <laughs> <laughs> xale yi ki teew nii xale yi ba tey ñu ngi déggante ak ñoom mais xam nga musique dafa nekk loo xamante ni kenn ku ci nekk boo ci yoree artiste. da ngay def li nga ci mën a def. Mhm. wala li nga ci war a def boo paree sa morom da koy dee def leneen. Mhm. voilà xam naa app bi ñu woon ànd ak ñun ñenn ñi dem moo jotoon pour mu jeex. Mhm. pour ñu mun a tàbbi ci yeneen i loxo. waaw yàlla noonu la ko dogalee mais y' a rien de mero man boobu samay doom lañ. ñoom ñëpp samay xarit lañ comme bés aussi something ñoom ñëpp voilà dañuy dégganteeg man dañuy dégganteeg bés. d'ailleurs am na ci ñoo xam dañuy ñëw studio ba léegi du ñu voilà boobu moom vraiment lépp mu ngi mi ngi cool. lépp mi ngi cool label bi mm. nekk woon ñi nga xam ne rek ñooy xale yi kese foog naa ni euh, Mandiaye Seck sa jumeau la. moom aussi euh, nga joué woon nga joué bu doy waar ci carrière foog naa ni baara di jamono bi nga ciy tëgg Mandiaye Seck tous les dimanches artistes yi magi ci réew mi sax ñemewuñu ko woon. waaw loolu dëgg la Mandiaye moom c'est mon frère comme tu as dit on a ensemble. Mm-hmm. moom mooy premier artiste bu ma yor ci showbiz bi. alors mm-hmm. c'était. Euh... te quelque chose quoi parce que moom liggéey ak moom ñaar la woon c'est dafa nekkoon di liggéey ak sa bopp di liggéey ak sa frère tu vois. Mm-hmm. mooy ñaari jeunes yu bokkoon rêve tu vois. Mm-hmm. Ah, waaw voilà ñu def ci nag li ñu ci war a def. Mm-hmm. ba fi ko yàlla yemale gis nga ab man loolu laay wax chaque jour gis nga ànd gis dafa am ab. yàlla moom moo koy yemale fen après keneen dafay jël mu dem. voilà di xale bu am talent ba Ndiaye di di ku baax di sama xarit ñuy déggante barki démb rek. maa ngi voilà alors euh, loolu la loolu mooy showbiz. loolu mooy showbiz def ba fi nga war a mën a yem sa morom jël. def leneen amul leneen. waaw loolu kese la. amul leneen ak hmm. ñu xëy gis leen ngeen doon ànd ak ki nga xam ne rek sa Best ak li nga xam ne mooy euh, label Subatel collaboré ngeen doon liggéey liggéey bu mucc ayib. waaw macha allah ñu jékki-jékki gis euh, The Best aussi retiré waat ngeen berat seen daaray bopp. Hmm. ngeen séparé ak li nga xam mooy Subatel. waaw comme ni ma la ko waxee léegi rek laa la koy waxaatee labelu Subatel nag ah vraiment mu nekk euh, liggéey bu bu bu am solo ci sunu carrière. Mhm. voilà dañuy ci jaar di nuyu Matar suba teel di mhm. suñu mag. Mhm. di suñu xarit. di ko ñu jàppale ci lu bari ki ñu taxaw. vraiment mu nekk collaboration boo xamante ni def na lu nekk ci suñu carrière. voilà ñu ngi koy nuyu Matar tey euh, moo ñu jàpp sunu loxo. dugal ñu bitim réew. xam xamloo ñu leen expérience jàpp suñu loxo yóbbu ñu Amérique aussi. macha allah tu a il nous a donné beaucoup d' opportunités Matar. ñu ngi koy nuyu di ko di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm. amiin li mu sumb ci carrière ci ci carrière am yëpp. yàlla aussi defal ko ci ndam. voilà mu nekkoon nag vraiment collaboration bu bu am solo. Mhm. comme ni ma la ko waxee rek. ba yàlla dogal mu war a jeex mu jeex ci jeexin bu rafet. ci jeexin boo xamante ni amul lenn luy ki ñaan amul lenn lu ci ñaaw il reste mon grand frère et euh, moi je resterai toujours son euh, foog naa ni am na solo comme ni ma leen ko waxee saa su nekk ne naa leen Diaspora saa su nekk nii lay doxee képp ku ngeen ma laaj man Asta dinaa doxal sama tànk ba ci biir këram jël ji ko mu tegal leen ko ci table bi ñu waxtaanee ko du dëgg. <laughs> teraanga mhm. euh, ku ne xam na ni jamono jii tubaarkàlla série bu mag boobu nga xam ne mooy kër brisé mooy def buzz si réew mi. ku bëgg ak ku bëggul mooy def buzz. Hmm. nga nekk ci acteur ñu koy woowee Roger. macha allah tey euh, sa intégration ci li nga xam ne rek mooy euh, ci biir série bu mag boobu ak sa collaboration ak li nga xam mooy Evenprod nu mu demee. bon déjà damay remercier parce que dañuy wax loo gis mu am rek am na ko tax. dëgg la man sama xarit laa demoon gunge. ndeysaan Yaya. Yaya Mène. waaw ah, mon ami d'enfance c'est mon jumeau c'est mon c'est mon frère. Mm-hmm. moom laa demoon gunge. Mm-hmm. parce que moom la ñu woowoon pour signaler ko pour mu ñëw corps mm-hmm. léegi ba mu leen bañ koy woowee. Mm-hmm. man maa koy signaler contrat yi d'habitude. tu vois mu jaar sama bureau ñu ànd man ak moom bañ demee. ci ni ma koy ci ni ñu négocier contra bi et ce que tu vois. les gens ils m'ont capté ils m'ont dit lan moo tax yow bëggoo jouer ma ne non man je suis pas acteur. pour le contrat de Yaya et après bon de par la suite ñoom ci seen xarañ ci seen génie. ñoom gis nañ ci man loo xam ne peut-être gisuma ko sama bopp ma leen di nuyu waa Evenprod di commencé ci nag euh, PDG bi Ibou Guèye mhm. di ay nit yu baax mhm. ay nit yu sell mhm. ay nit yu respecté nit ay nit yu mën a liggéeyal nit ay nit yu fekk nit am li ne ci moom te xamu ko ñu yee ko ci moom macha allah waaw c'est comme ça qu'ils m'ont choisi et que man aussi ma gëm leen ñoom pas bopp ma gëm leen ñu yee li nekk ci man voilà alors comme Ema intégration noonu la demee c'est à travers Yaya sama xarit bi nga xam te moom laa àndaloon. macha allah ba dem ba waa Event Prod ñoom man je peux dire que c'est le cinéma qui m'a choisi. Mhm. voilà c'est comme ça. waaw la foofu laay ñëw parce que man ma lay xam mhm. euh, euh, mhm. mosuñu ko gis li nga xam ne mooy série. mosuñu ko ci dégg. tey ñu koy du jour au lendemain gis la ngay joué li nga xam ne mooy cœur brisé est-ce que yomboon na. déedéet yombul woon. déedéet c'était pas facile du tout parce que man je me rappelle sama première apparition Kër Buse c'était genre mais kii sof na de waa kii bëri na manière de. kii lan lay incarné ni mais ñii moom daf ñu choix bu baax. je un mhm. man moo tax man critique dafa nekk lu may booster. Mhm. alors chaque commentaire négatif képp ko commentaire am na ci ñoo xamante ne dama ko screen pour jàpp seen tour pour xool après ci man sama évolution seen commentaire laa koy xool alors man sama évolution damay topp sax seen commentaire yi. c'est-à-dire man je man quand quand y ma ko xoolee sax je mën naa gis positif ci négatif bi. Mhm. mooy que man dama koy jël man man dama koy jël comme leçon la. ki mu may ñax à ce que ma gën a góorgóorlu. à ce que ma gën a teg sama tànk fi ma ko war teg. Mhm. alors et vraiment euh, macha allah. macha mhm. allah damay sant yàlla di di sant sénégalais yi. ndax ñoom ñoo ma accepté. ñoom ñoo accepté lii nga xamante ni moom joué naa ko. lépp ñoom la man duma ci dara. lépp ñoom la mënoo ci dara tournage yi ñu ñëw ci tournage yi ndax ku ne xam na tournage foog naa ni ko Sénégalais di seetaanee demeewul noonu. non du ko. métti woon na ci yow jafe woon na pour nga pour nga pour nga sentir ci à bu baax a baax wala. waaw mooy li ma pas parce que gis nga l'acting pour man caaxaan bi ko gars yi jàppee. Mhm. série yi ni sénegal ni ñu jàppee casting am na rek nga dem ne da ngay nekk acteur wala dara mhm. c'est pas ça. c'est-à-dire c'est quelqu'un boo xamante ni attan na ku attan rek moo mën a nekk acteur koo xamante ni attan na émotion yëpp parce que des fois tu te retrouves par exemple man Jules mhm. da nga mën nga dugg ci powu ci powu Roger mun mhm. nga pare tournage nekk une semaine Roger da ngay am difficulté pour génn Roger nekkaat Souleymane parce que da ngay da dugg ci da ngay dugg ci aamu keneen personnage bi nga représenté c'est pas toi tu vois am na ci ñoo xamante ni sax mun na la topp alors c'est autre chose c'est quelque chose de très très mystique bu bu ñu parce que le fait que ngay ngay yëg say ressenti ba di ko delloo ay milliers de personnes ñu koy accepter c'est pas facile mm-hmm. alors le cinéma c'est l'art le plus noble pour man mm-hmm. vraiment dugg naa ci et c'est quelque chose que j'ai tellement aimé que je pensais pas que naa ko bëgg parce que moi j'avais même pas l'habitude de seetaan ay séries Sénégal mm-hmm. sur le cinq euros alors kon li ma duggal ci lii ñoom la Evenprod la ñoo def mbëggeel bi ma am tey ci ci acting mm-hmm. moo ci def moo ci def mbëggeel est-ce que tey Souleymane rëccu na benn yoon li nga xam ni mooy choisir na commencé di jouer fii la yem wala da nga koy continuer pour dire vrai ma ci dara rëccu ma ci dara et que comme je dis man maa ngi ci ñoom seen loxo macha allah et que mu war a demee rek dina demee noonu contrat nga signé ak Even Prod wala benn mesure production bi ñu la soxlaa ñu ñëw mm, non maa ngi Even Prod fu nekk nii comme j'ai dit rek man ñoom ñooy yee nekk ci man. Mhm. je pensais pas que j'allais être acteur. alors que maa ngi ci ñoom. Mhm. et que vraiment très sincèrement. Mhm. yaa ngi ci ñoom mu nekk rôle boo xam ni foog naa ni euh, jàngale la. ndax bokk nga ci role yi gën a gën a sensible ci film bi parce que koo gis rek mu ngi lay bindal ci commentaire yi Rose et Hawa. tey expérience boobu nga dund ci ci ci rôle bi nga doon tourné noonu. lan lan la la def lan la def ci yow en tant que Souleymane en tant que góor yàlla. déjà pour te dire que Absa damay jaar ci loolu di nuyu xawaa bu baax mi nga xamante ni moom naa ëpp lu ma joué. Mhm. xawaa daf ma jox daf ma jox lu lu lu garaaw kooku actrice bu mag la. comme Léna Gueye maa koy nuyu actrice bu mag a mag a mag. Mhm. ku mën li muy def. macha allah daf ma daf ma jox tellement que tu es obligé nga jox nga delloo ko. lu no xam nga xam nga xam nga jouer ku dégg dafa neex. Mm-hmm. boo déggee. Mm-hmm. nga jouer koo xam daf lay dégg. Mm-hmm. loo ko jox mu delloo la ko. loolu dafa neex te leneen da lay jox par force da koy delloo. boo mënul woon sax da ngay mën. Souleymane sa bët Leena Gueye sa bët di taay di xonk nga romantique nii. da nga koy jël bu jaar yoon la. kooku c'est ma sœur je la connais depuis très longtemps. bu <laughs> yeboo foofu moom. c' est vrai bàyyi. man Sénégalais <laughs> nii nee na c'est ma soeur c'est ma soeur grave kooku sama soeur la wallaahi azim kooku sama kooku dama koy wax kook sama soeur. voilà kooku kooku sama soeur la. waaw daf may daf may booster. waaw la sa soeur la di di waxaale c'est-à-dire gis nga bi y a des sax yoo xamante ni dañ tax ma gën a bëgg cinéma. ku ci Benga. kooku c'est mon de sang. kooku moom on s'est croisé ci côté cinéma bi lañ daje. Mm-hmm. Arona c'est mon frère de ouf. waaw moom c'est autre chose. waaw mm-hmm. il m'a tamit nekk na ku ma ku ci lu bëri Arona. Mm-hmm. Arona il m'a donné tellement de conseils. waaw m'a daf ma boosté. dama ñëw dama ñëw rek mu gëm ma. ma dafa nekk ci yow. da nga ko war a génn macha allah macha allah mu nekk euh, lu lu expérience bu doy waar boo dund ci kër Brisé. waaye aussi li ngeen li ngeen di joxe moom ngeen ñuy delloo ñu koy yëg. Mm-hmm. Souleymane ak xale jigéen ñi. <laughs> Souleymane ak xale jigéen ñi xale jigéen ñi Souleymane lan la loolu lu raw. ah teraanga ak xale jigéen ñi histoire bu yàgg la loolu. <laughs> lan la lan ban secret la Souleymane. ban ban ban ban link la Souleymane yor ba xale yi koo wax mu ne la Souleymane Awalaay tey Rose ñëw xale yi koo wax mu ne la Rose rek laay topp. man ku ma topp doo juum. lan moo sa secret. ko topp. mu juum. li <laughs> sa secret xale yu jigéen ñi. secret xale yu jigéen ñi mooy xale yu jigéen ñi dañu maa bëgg ma bëgg leen rek <laughs> non y' a pas de secret gis nga xamal c' est à dire il faut juste nga comprendre. ay mm-hmm. que peut être dans Roger. comme ni ma ko waxee ci kii bi dans Roger y' a y' a un peu de Jules. c' est à dire. man ku ma xam-xam ni nit ku bëgg nit laa. nit ku mun a mun a mun a fekk nit am problème am ma dugg ci ba mu jeex. comme xam nga nit laa koo xamante ni man lu baax lu baax rek laa ci gis du ma ci gis du bon. Mm-hmm. tu noonu la ma Serigne Saliou tàggatee kon. Mm-hmm. nekkul nekkul dara lu may forcé naturellement nii la Souleymane du looy forcé man li may wax ak yow xam naa ko du looy forcé wala mm. mais Souleymane ak xale jigéen dafa am link bu garaaw boo xam ne dafa nekk seen diggante tey génn ñi foog naa ni <laughs> saa nga nekk rosé rek xale xale dañ lay topp am na événement mag sax bi amoon xale yëpp sax municipal lañ mujjee Souleymane tamit waxal ak man sa diggante géli sama diggante xale jigéen ñi mm. samay yaay lañ samay sœur lañ man seen la mu sekk man jàmm ma sekk ak man jàmm xale yi nag moom du ñu bëgg ku baax. te yow ku baax ñu bëgg la. te yow gën a baax. man damaa gën a baax ab sax. Mhm. macha allah comme ni mu ko waxee xale yi ku baax ñu bëgg la aussi euh, li mu wax dëgg la ndax foog naa ni nit euh, du bëgg ku bon nit du dem ci ku bon euh, macha allah man baaxaayam dama koy seede ndax comme li may wax rek ku ma jël émission bu ma xam ci yow dama koy wax. nga nekk ku baax nekk sama frère yàgg maa taxaw nag. nga nekk nit ku gën a gën macha allah lu ma nekk yaa ngi ci lu ma dugg yaa ngi ci. fuyoo beewoo changé woo soppeeku woo Souleymane ak Serigne Saliou. Eh, loolu moom loolu fa yoon sax bokk kooku c'est ma vie c'est si lam ki ku mooy daw sama yaram waaw mm-hmm. kooku moom moo tàggat moo tax ñu ñu ñu mel ni ñoom te duñ ñoom mm-hmm. moo tax ñu moo tax ñu mel ni ñu mel tey moo tax ñu am kàttan moo tax lu ñu dugg mën ko mm-hmm. moo tax ñu am fit te du ñu reew du ñu allah moo tax duñu duñu fuuy duñu rëy waaw moo tax ñu ne ci kaw waaye ñu ngi ci suuf kooku mooy tax ñu dégg jamono daal mm-hmm. kooku daa tax ñu dégg jamono mm-hmm. waaw moo tax bu kawee rek ñu gën a wàcc waaw waaw noonu demee Serigne Saliou day man day day day day suma am day suma lépp mm-hmm. waaw day suma wasila di suma maam di suma papa di suma yaay di suma lépp voilà foog naa ni euh, nit ñi dañuy dégg rek euh, Roger wala Souleymane Awalaay mais mënuñu xam taalibe bi ne ci yow tey soo gisee ma ne la Souleymane ak Serigne Saliou dama nekk ak yow. Mhm. dund ak yow ay période yoo xam ni. Mhm. dara ñor la dul Serigne Saliou. dëgg la mën nga swag mën nga def affaire playboy mën nga def yu la saf mais tout le temps lépp looy commencé Serigne Saliou la wala looy jeexalee Serigne Saliou la loolu la Serigne Saliou def ci yow ba tax ni nga toogee nii bu màggal Touba jotee ñu bari duñ la xàmmee foog naa buñ la fekkee sa dal mën yaa koy res. da ngay summeeku grand bu meer sax ngay sol takk sa ndigg nekk ci cin yi di togg lu tax loolu. waaw mooy mooy li ma doon tey xam nga Absalom laa lay justifier. yaa ngi wax lu mu def nii lu ma defal il a fait pour moi man lépp lu ma am ak lu ma def Serigne Saliou la gillaanga yàlla ak yonent bi. barki Cheikh Khadim parce que moom ba ma tànnee ba tey dañ may tànn. moom laa expliqué chaque jour. man je fais partie des jeunes yu Serigne Saliou xàmmee ci mbooloo woo leen taamu leen teg leen jëbbal ma jëbbal ko sama bopp man ma jël sama jëmm ji jox ko kon boobu ba tey bàyyi ma tu comprends si la mooy ki nga xamante ni c'est l'absent le plus présent de ma vie tu vois quand je suis avec personne moom laay sentir sama wet comprends c'est c'est ça c'est le cœur qui joxol moo koy tànn quoi alors Serigne Saliou dañu ñaan yàlla yokk leeram et que tas ñu ci barkeem et que aussi euh, mu ñuy kàttanal ci dara jàmm mu ñuy may tawfeex dañu may jàmm dañu may wér yaram ba ñu yeggale suñu yoon ndax ñun lépp lu ñu bëgg rek mooy di ko liggéeyal mhm. di ko liggéeyal ci lu ñu mën ak ci lu ñu mënul voilà mhm. allah di ko liggéeyal ci li ngeen mën ak lu ngeen mënul euh, yàlla nañu yàlla taas si barkeem mhm. macha allah Souleymane ana sa jigéen Soumboulou Bathily ah sama jigéen sama xarit Soumboulou moom moom mi ngi fi ça très bien d'ailleurs sax tey ngeen de <laughs> euh, bete bete benn série la bu bees moo moo moo ñëw remplacer les cœurs brisés. Mhm. mi ngi ci Soumboulou moom ku ko namoon da ko xaar la femme brave. Mhm. jigéen ju mun góor. Mhm. jigéen ju doy waar. ju ju baax ju xam lan mooy àdduna. waaw di jigéenu sëykat. waaw di ku rafet xol. macha allah waaw di ko def nit ku ma bëgg aussi sa digganteeg moom parce que foog naa ne sénégalais yi ñenn ñi dañ daan gis Souleymane ak ki nga xam ne rek mooy Soumboulou Bathily mhm. da ngeen jëgante woon lool lool mhm. lool mhm. mais bu yàggul dara dañ dañ dañ la gëj a gisanteeg Soumboulou quoi mais c'est normal xam nga les sénégalais yi comprennent pas gis nga relation ak nit bu amee bu demee ba am borom kër da nga koy bàyyi mu sëy sëy jaamu yàlla la dëgg la mais n'empêche ñun defuñu woon nekkuñu woon ensemble mu nekk sama jigéen nekk sama lépp pour nit ñi pour nit ñi c'est juste qu'on avait le temps de se di nekk di gisee mhm. mais maintenant mi ngi sëy mi ngi ci yoonam sëy jàmm yàlla la mi ngi ci li war a dekk ñu mhm. ngi déggante ñu ngi ñu ngi ci jàmm mhm. tu vois alors voilà temps quoi kenn ku ci nekk ak fi ngay toll kenn ku ci nekk ak niveau bu ngay toll doo am temps. Mhm. mais xoolal ñu ngi ci jàmm ak salaam. ñu ngi fi di ma jàppale di ma ñaanal di ma ma conseiller. macha ngi si jàmm di la jàppale di la conseiller foog naa ni waxtaan bi am na solo comme ni ma leen koy waxee waaye du ma jeexal émission bi te laalu ma li nga xam ne rek ku nekk ci ginnaaw Souleymane xale yi nee na am na ku la am na ku la ku ku lay booster am na ku ne sa ginnaaw borom doole bu bari doole ku bari doole sax. rek Serigne abaak ah, yonent bi loolu la wax de nee na am na ko bari doole ko nekk sa ginnaaw. Hmm. waaw di la ko xëpp nga koy xëppaate. benn nga. ah, ah ginnaaw ginnaaw ba ma sant yàlla. carré VIP. julli ci yonent bi <laughs> sant sumay ñaari waajur sant sumay xarit vraiment say sumay xarit bu baax a baax sumay sumay xarit yi nga xamante ni ñoo ciy jàpp. Mhm. nga xamante ni man nag j'ai de j'ai de fidèles j'ai de fidèles amis. yoo mhm. xamante ni ils sont là ils m'épaulent. ñii ñu ngi ci bureau ba. ñu ngi ci kër yi. ban bureau. waaw bureau bi mu ngi ñëw maa ngi maa ngi waajal benn affaire boo xamante ni daanaka loolu moo ñu indi woon sax Sénégal. Mm-hmm. alors ñu ngi ci chantier yi boobu ba tey ñu ngi jug ñu ngi daanu. sama lanc moom bu ko sàkkamee li lay di Sénégal maa ngi ciy ñëw dama ne carré VIP. waaw carré VIP waaw boobu du nuyu la. nga nekk PDG bi. E waaw carré VIP lanc bu doy waar bu neex. Souleymane bari nga fa investir. Café VIP waaw di ci nuyuwaale sama partenaire sama grand grand Momo. ñoo xamante ni euh, man ak moom ñoo fa nekk. Mm-hmm. waaw voilà mi ngi naan. ne benn laps de temps nga génn Sénégal dem États-Unis tuuti nga ñëwaat. Ah, gën a dem gën a jàngiwaat gën a wutaat ay xama après nga ñëwaat loolu la rek mais ñun duñu duñu daw duñu duñu daw dañuy dem rek xool ñëwaat. ab sa ñun ay xale lañ dañuy liggéey. dañuy liggéey dañuy dañuy dañuy liggéey Souleymane ak euh, stylam Souleymane ak euh, fashion ah, Souleymane ak sañse loolu moom yaa ko waroon tontu moom non mais bon ah, xam nga ah, man instant bii ni tey toog ma place pour tontu parce que ku ne xam na sama diggante ak te dis Souleymane ak solo moom mooy comme nit ni muy bëggee boppam c'est-à-dire ni muy bëggee xam nga c'est-à-dire des fois da def yoo xamante ni si toi yow yaay jéem tu te fais plaisir d'abord avant de faire plaisir aux autres. Mhm. est-ce nga. Mhm. c'est-à-dire tu te fais plaisir je dis que par exemple. li ngay sol wala li ngay wuti pour sol ko mhm. da ci ciy sonn te yàlla dafa ma dogal ma am benn sama costumier nga xamante ni vraiment moom mooy gérer sama sama li may sol lépp muy vieux vieux Samb. Mhm. moom mooy gérer sama sama jëkkër jooju xam nga ne doo jàll te duma ko nuyu tubaarkàlla Samb Siria ah, Ablaye Daara Mbar Maajoor ak Matar tubaarkàlla nee naa la yow da ngay baax da ngay gën di baax mbokk mi yaay yirim ak yaat ma caam maa la bëgg wala maa leen bëgg <laughs> eh, eh. yàlla bu la booleeg ñu mel noonu ñoom ñooy gérer loolu des fois du ma xam sax lu may sol billaahi mhm. damay ñëw rek vie mooy génn lépp na ma lii ak ngay sol ma génn ko sol nekk ci leneen macha allah kenn ku ci nekk da koy jox cëram mhm. ci li mu ci moom mhm. voilà ñii ñu ngi ci communication bi tu vois ñii ñu ngi feneen ak feneen ay Jules Mbaye mon fils papa ñëpp ñëpp gars yi ñu ngi foofu ku nekk di ci jàpp you know you know chéri Mame Maty Vieux Samb nuyu naa la Souleymane Awalaay ak euh, ñi nga xam ne ñooy artistes yi foog naa ne sa liggéey yamul ci ci ñoom Mandiaye wala The Best Family kase mm-hmm. mais dañuy gis yéen artistes yi mag yi bëri ci réew mi ku ci mel ni euh, Ibro Naaje ku ci mel ni Sidi Diop jamono ji Souleymane ak ki nga xam ne mooy Waly Ballago Seck ndax way wuréy bi mu la woy ci réew mi ku ne gis na ko waaw di leen ñoom ñëpp ñuy sumay frère di sumay xarit mm-hmm. di sumay lépp voilà la Sidi Diop sama rakk la mm-hmm. loolu du tey depuis Las Palmas voilà di sama rek di xale bu am talent. di xale bu am talent bu mën a way trop. Mm-hmm. après xam li muy def. Mm-hmm. voilà macha allah ko ñaanal yàlla mu yeggal yoon. Mm-hmm. et que li mu sumb nii di jeunit bi yàlla na ko ci yàlla defal napp. moo ak équipe bu suba teel bi yëpp ci barke Seydina naa macha allah voilà di di waxaat aussi ci nga xamante ni mooy Ibro Naajo di sama rak dëkk la Assainies. nekk ci banlieue bi di bay waaram. di xale bu am talent na ko gars yi bàyyi xel. te ñu dooleel ko. ndax xale boobu talent ngi noonu. naka gars yi bàyyi xel ñu doole ko balaa ngaa ñëw ci nga xam ne mooy Wally Souleymane pourquoi tout temps nga préféré nekk ci ginnaaw jeunes yi di leen buux. non parce que bon man Calam Dior la bu ma bëgg di nekk ci li nga xamante ne balaa dañ naan mënul dem wala demul wala kii na coom ba. man loolu laay bëgg. Mhm. Calam Dior la foofu laay bëgg di nekk damay bëgg tout le temps ñi nga xamante ni ñoom lay liggéeyal wala ñi nga xamante ni ñoom laay ñoom laay nekkal ñu nekk ñi nga xamante ni. duñ leen may dara ci merci ci liggéey lañ leen di mayee li ñu bëgg lépp lu ñu am ci liggéey lañ koy amee voilà parce que c'est bon de s'imposer et de vraiment voilà mhm. te dire que fi damay nekk fii gëm sa bopp gëm sa musique mhm. parce que musique koy commencé rek da nga koy jëlee fii yóbbu ko fee waaw du ma nekk dara te du ci yokk dara mhm. loolu mooy sama slogan lépp lu ma nekk du ma ko dundee dama koy dundal loolu foofu laa nekk voilà mm. pour tëj nag ma ñëw sama digganteeg Wally sa digganteeg Wally. sama digganteeg très longue histoire. Mm-hmm. parce que xaw ma ko c'est un grand frère pour moi. ndax euh, on a grandi ensemble muy Mandiaye Seck. Mm-hmm. tu vois là et que suñu cursus boobu ñu màgg il nous a jamais lâché. tu comprends un peu et que même dans le showbiz. Mm-hmm. même quand quand on était dans le showbiz vraiment dans le showbiz. suba tout ce que tu veux là. c'était pas musul am il a été il a un grand frère. Mhm. il jamais eu de mot déplaçant wala mosul am lu mot bu déplacé wala non. Mhm. on n'a jamais dépassé les bornes on a toujours resté on a toujours été là quoi fi ñu war a nekk. mooy nekk ay frères liggéey jàppalante. Mhm. mu nekk nag modèle. voilà mu wéy ma nag lu neex lu Sénégal apprécié. nekk loo xamante ni muy xol la moo tax mu mel noonu ma ko ciy remercier bu baax a baax. di ko ñaanal yàlla moom tamit. di ko di jaar ci lu mel nii. di ko jaale sunu yaay jaaga. di ko wax ni àdduna nii la gis nga yàlla bu la naree bu naree dénk rek dalay nattu mais ñu bëri ñu bëri jamono ji ñu ne ñu ne yéen bi disoon na mais dina gën a diis yow sa frère la sa xarit la lan nga koy conseiller actuellement Wally tollatul fi ñu koy conseiller Wally kilifa la gis nga kilifa bu mat ci signe yi nga koy xamee xam fan la toll fi ñu koy defee ni ko yàlla ni ko yàlla def c'est-à-dire ñu accepter que ni ci fi mu nekk ci famille fi mu nekk ci li mu représenté c'est un leader tu vois alors tey macha allah dañu ko ñaan yàlla rek yen bi oyof et yàlla boole ko de vraiment de bonnes personnes yu ko épaulé yu taxaw tey am na ko il a des amis il a ses frères am na ñu fa nekk ay fidèles personnes yu fa nekk ñu nekk di ko dooleel. alors sénégalais yi bëgg nañ ko mu ngi ci xolu sénégalais li ñu koy ñaanal rek mooy yàlla yeggali ko yoonam macha allah li mu bëgg lépp moom moo ko xam yàlla defal ko. ci barki soppeem Bachir Fall. amiin euh, Souleymane dangaa laal showbiz balaa maa jeexale dama lay laaj ci li nga xam ne rek mooy showbiz bi jaxasoo na. te yaa ngi ci biir. kan la. showbiz bi jaxasoo na lool Souleymane. lu ko jaxasoo ndax comme li may wax rek saa su nekk showbiz bu njëkk foog naa ni vieux day far fenn fii vieux samba danaa na Souleymane mooy sama artiste. Mm. donc Souleymane fees na day feesal fii wala tëgg na lu neex. Asta mu ne Omar mooy sama artiste Omar feesal day tëgg lu mais léegi par la par gang la. waxante lu ñaaw dañuy dem ba di si dugal parents yi te yow kon dañu doon ne showbiz génnee la ci. waaw on est d'accord gis nga loolu tolluwaayu showbiz la. waaw comprendre nga tubaab dafa ne la musique c'est de combiner des sons d'une manière agréable à l'oreille c'est-à-dire la musique là. Mm-hmm. c'est quelque chose boo xamante ni c'est par feeling. yow mi nga xamante ni tey am nga existence ba ñëpp xam la. mën mm-hmm. nga bañ a bokk ci buzz bi mooy l'artiste du moment là. parce que y a des jeunes yoo nekk yu nekk di di di fël ñi gars yi naan wéyuñu dañuy wéyantu mhm. ils font de la bonne musique ils comprennent xam nañ dan mooy musique te gars yi nañ leen bàyyi xel c'est-à-dire il faut accepter que ni showbiz il faut dafa ànd ak ay coow ay waxu kalan ay tout ce que tu veux c'est-à-dire mais les gens ils comprennent parce que yéen yéen da ngeen bokk ci showbiz bi mhm. te pour ngeen jaay seen article il faut kenn ñëw wax lu pour se faire remarquer yéen aussi ngeen jël ko ci vois gën ko booster alors c'est des petits trucs mais kenn waru ko jël ak xol. dañ ko war a jël ak xel ñu xam ne kii ki koy def day mel ni làmb tey ñaari nit def signa di def signature contrat il faut pas si du ñu dekk di xastante wala di xëcc parce que dañ koy def parce que dañoo bañante non il le faut pour jaay combat bi mais bu jeexee après c'est bon jeex na kenn ku ci nekk yaa ngi si chemin mais gis nga lu négatif sax nit da nga ko war a nga xam ne lii bu ñu ko sekkul woon peut-être lii du am. Mm-hmm. musique lañ sekk musique trésor ñëpp la kenn moomu ko. Mm-hmm. kenn ku ci nekk am nga du xool stratégie bi ngay jël ba exister. Mm-hmm. mais ça n'a rien à voir ak li ngay yëg sa xol. man bëri na artistes yoo xamante ni dañ leen di gis c'est-à-dire Sénégal tey il prend les trucs à cœur alors que affaire affaire de xel la. stratégie la booy def ba Sénégalais accepté ko. bëgg la ci nga mun a doxal sa business. parce que les artistes aussi ils sont là suñu xol yi dañ fi nekk pour duñu duñu duñu fàtteloo suñuy problème dañ fi nekk duñu ñu bégal alors dañu leen war di protéger dañu war di respecter Sénégal bis bu ñu bu ñu bu ñu woon seen artistes yi mm-hmm. valoriser leen comme il se doit jox leen gëdd te passé nañ fii ñun kenn dàkkale ñu musique mm-hmm. te y a des jeunes yu fi nekk yu am talent côté beatmaker côté management côté musicien yi kenn waxatu ko mm-hmm. des artistes yoo xamante ni macha allah ñoo fi nekk mais na leen gars yi dooleel. na leen gars yi dooleel waaye kenn di wax milieu suuf bi ak artiste bàyyi mystique Souleymane Awalaay mystique bi ci dëkk bi. mystique bi ci dëkk <laughs> c'est-à-dire kaay ma xamal la. adduna bi yëpp. lépp luy xew c'est dans la tête. mosoo ci am anecdote mosoo yeewu gis sa buntu kër ay bagages wala mosoo toog <laughs> gis ñu laal la ak benn affaire. bisimilah man kay mën na dara que yow li yaay bañ ñoo xamante ni. chéri Mamati vie naa la. Souleymane ñu bàyyi la nga tàggatoo ñi nga xam ne rek ñooy sénégalais yi toogoon di leen se di la saytaan ak lan ngay yan projet nga teg pour euh, ci kanam li ci kanam. déjà di leen nuyu di kontaan ci diaspora 221. di kontaan ci sénégalais yëpp di leen baalu àq bu baax a baax. parce que des fois acting dafa metti des fois nga joué loo xamante ni peut-être di nga di nga gaañ kenn nekkuloon intention bi mm-hmm. tu parce que nous on est juste des des acteurs mm-hmm. maa ngi baalu àq sénégalais bi ci topp mooy di di sant di gërëm mm-hmm. képp koo xamante ne rek mi ngi ciy jàpp képp koo xamante ne rek yëkkati nga sa téléphone wala nga dox ba ci suñu jëmm ji wala ñu ci jëmm ji nga jàpp ci moo xam lépp loo ñu mën ci defal ñu ngi lay ñaanal yàlla nga yàgg fi te nga dolli ñu ñaan yi te ñu ngi lay sant di la gërëm gërëm képp koo xamante ne rek xarit Souleymane nga wala képp koo xamante ni yaa ngi may béggee di sama soppe maa ngi lay fekk fi nga nekk di la jox sama loxo di la nekk kontaan naa gis naa si pot bi di gërëm suma famille bu baax a baax. balaa balaa maa dugg jóge foofu foog naa ni sax xel dama fat sama xel dafa fatu Souleymane ak Awalaay. Souleymane ak Awalaay ndax euh, comme ni may wax ku ne am nga yaay. mais hmm. tout le temps boo déggee Souleymane da nga ciy dégg Awalaay loo gis ci Souleymane rek Awalaay mi ngi ci biir. ah tu sais man sa yaay lan la. non man je parle je parle de de mes parents. man j'ai la chance d'avoir tam papa ak sama yaay. ñoo nekk sama xarit. di ma supporter. man ku ma xam-xam nga sama papa xam nga sama yaay. tu vois ils sont ils sont là ils sont présents. Mhm. c'est mes parents ils sont présents dans ma vie. sama yaay sama xarit la. Mhm. tu vois sama yaay jàmbaar la comme je le dis tout le temps voilà ah, moom référence la. waaw moom elle a elle a sacrifié des choses pour ses tu vois et là c' est une maa ngi koy nuyu di ñaan yàlla mu yàgg fi ndax bu fi yàggee rek ñun dañuy gën am doole di ñaanal aussi suñu taaw Cheikh ak sama rakk Bintu samay doomu baay Babacar Muntaga ak suma famille ñëpp waaw sama papa aussi same thing sama papa moom njëkk jël sama loxo yóbbu na ma ci BOPS waaye xale bu ndaw tu vois a toujours cru en moi dafa mës gëm ni mm-hmm. chemin bi ma nekk nii mun na ci représenter quelque chose mm-hmm. damay nuyu samay waajur bu baax di kontaan ci ñoom di leen wax di ñaan yàlla mu yàggal leen fii macha allah comme bépp way jur alors voilà foog naa ni euh, émission bi am na solo ndax euh, ku nekk xam na ki nga xam ne rek mooy Souleymane Awalaay waaye ku ne xam ne ki nga xam ne mooy Rose émission bi du yomb ci man yu si bëri du ci mën di xuus parce que moom sama grand frère la te aussi cëru grand frère bi dama koy delloo ñi may bant ba jee moom bokku ci <laughs> du dëgg di leen jox di daje nag ba beneen yoon ak ci beneen acteur waaye ci beneen daanaan incha allah ci kanam. 21 Diaspora 221 Pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez wwwdiaspora vingt et optez pour des informations fiables et vérifiées.